mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu ci seen rédaction sen tv point info tey nag ñu ngi dalal Saliya Saliya artiste chanteuse ci émission fii lañ koy waxee soxna Saliya maa ngi lay nuyu di la dalal. soxna Fanta maa ngi lay fay bu baax. di leen eh. nuyu yéen ñëpp waa sen tv point info. Saliya mën nañu xam kan mooy Saliya. waaw Saliya mu ngi dëkk Kër Massar nekk artiste di yëngu ci wàllu musique artiste chanteuse. dëkk Kër ma Massar. Saliya bala ngay dugg ci musique ci lan nga doon yëngu. avant ngay dugg ci musique bi. avant may def musique nak maa ngi doon def commerce. dama doon jaay aussi ay chant du rond point Kër ma Massar ñëpp moom lañ ma xamee. dëgg mhm. jaay naa lu nekk daal lu ne dugg naa ci <laughs> commerce bi. Mhm. après par la suite ci nga dugg ci musique bi par la suite parce que dama bokk ci famille griotte. sama côté yaay ay géwél lañ loolu moo tax ma dugg ci musique. mais bi nga duggee ci biir musique bi amoo ci jafe-jafeek yooyu noonu. pour intégrer waaw tout début est am naa ci ay jafe-jafe tuuti rek comme yi ci ñëpp dem am parce que ñëpp xam nañ ne début dafa metti comme xam nga. Mhm. début moom dafa metti mais danga koy gëm rek. Saliya ñu gis sa titre euh, musique bi da nga jël ne ko <laughs> coppet ci bi cof ci digg bi cof ci digg bi <laughs> ñu gis da nga jël sa titre musique bi ne cof ci digg bi lu tax nga ne cof ci digg bi. waaw cof ci digg bi. titre boo xam ne la dama ko génne pour sensibiliser sama rakk yu jigéen yi ak jigéen ñi uh-huh. parce que maa ngi wax foofu noonu xale du laal ci digg bi mooy ko jigéen dafay fonk boppam et tout waaw loolu moo waral titre boobu loolu moo waral cof mhm, ci digg bi sensibiliser jigéen na fonk boppam quoi ban jàngat nga am ci musique bi mhm. à l'avenir fii ci kanam ok donc musique euh, Sénégal xaw na sooxe nag xaw na sooxe parce mbalax de trop de trop bi soo xoolee gars yi doon def mbalax de trop ñu ngi changé comprendre nga. Mhm. soo xoolee comme ni vie bi léegi mu ngi changé. Mhm. parce que pour nga mën a yóbbu sa musique ailleurs ñu wàññi mbalax bi tuuti comprendre nga mu naam nag mooy suñu cosaan te moom la ñu am mais mbalax bi Sénégal la yem parce que suñu musiciens yu mag yi ngay gis fii ñu leen di tudd yëpp bu ñu génnee duñ joué mbalax. wala buñ ci joué tamit du bari soo xoolee musique nigérien bi léegi mu ñuy raw.

bëgg nga am visibilité ngay génn côté boobu dañ ci am problème parce que am na ci yenn animateur yoo xam ne wala animatrice yoo xam ne bu fekkee da nga nekk jeune talent xam nga sénégalais dafa bëgg ko siiw mhm. boo siwagul da ngay am problème pour visibilité comme xam nga ak yenn mhm. chantage yeeg affaire yëpp mais gëm sa bopp rek musique moom lim làmbool ci ay jafe-jafe bari na mais lépp lu ci mënti nekk rek nga gëm sa bopp. Ah, ci biir aar bi daal day day di am. chantage ah, bien sûr waaw day am chantage parce que pa yenn saa nit ki nekk ci milieu mu leex na ne mën na la ci génne. Mhm. mais mu ngi lay jéem a chantage pour nga génn comme xam nga promotion canapé. Mhm. defal lii ma defal la lii et tout comprendre nga yooyu yëpp dañ koy jànkonteel mais fulla rek ak personnalité moo la ciy génnee. moo la ciy mën a mhm. génnee. Mhm. Saliya musique bi ak corona bi fi mu toll nii naka ngeen nekk di ko dundee ndax boîte de nuit tëj nañ concert amatul. donc euh, yéen artistes si naka ngeen nekk di dundee loolu fi mu toll ni waaw vraiment mbas mi moom bi ñëwee daanu suñu kaw dañ koo nangu xam ne ndogalu yàlla la. c'est parce que bim mu amee en tant que man artiste dajale naa jeune artiste nek keur Kër Massar ak artiste ñu def euh, euh wër touru keur Massar sensibiliser parce que ay porteurs de voix lañ. Mhm. donc lolu mo ñu wax ni mëna dimbalé dimbalee askan bi moy suñu voix ñu def caravane jox nit ñi ay masques jox nit ñi ay gel de lave-mains yeeg yooyu yëpp. Ah. waaw loolu lañ taxawé ci corona bi légui nak li ci dess dañ koy bayé ci loxo yalla ah. comme fekké nañ ko bakoy netali rek alhamdoulillah Saliya gis nañ ni réseaux sociaux yi ñu ngi lay yàq en ce moment lu nekk. ci côté positif comme ci négatif. dëgg la dëgg loolu naka nga nekk di ko dundee instant bi dama koy accepter dama koy accepter bu baax parce que man maa laal fi nga xam ne kenn mosu ko laal comprendre nga parce que musique sénégalais bi mosoo dégg nit ci nit way ci digg bi. déjà ay yaay yi nga daan dégg damaa bëgg sama yaay mbëggeel et tout mais dafa am loo xam ne nit ñi dañ koy dund muy réalité. Mhm. te kenn mosu fa jaar Saliya ñëw jaar fa léegi boobu. motax dama ci déglu lu ne mais loolu du dara damay accepter parce que man ma bëgg té so bëggé di nga déglu lu ne amul ben problème. lan moy digg bi. wa digg bi so déggé ci son bi ma ngi nan yaa ngi may yóbbu resto. ngir bëgg ciof ci digg bi. ciof ci digg bi waay jigéen ay sunu yaay moy ilimaan moy jur ilimaan donc. donc euh, di ma xoy sa xaliss di ma yóbbu restaurant so ma bëggé tak ma ndax nga ciof ci digg bi. wala nga laal ci digg bi donc loolu waxu olof la yow dégg nga ma kon jaruma ci la gaay yi seetaan dégg nañ. <laughs> <laughs> digg bi daal mooy jigéen na fonk boppam. Oh. mais nag soo gisee problème mu réseaux sociaux bi ñii di wax côté positif bi ñii di wax côté négatif bi dafa am ñoo xam ne ay chauffeuse lañ. am ñoo xam ne ay chauffeur lañ kon way bi du leen arrangé. <laughs> donc ñii di critiquer ay chauffeur lañ ak ay ah, chauffeurs. donc foofu da leen a laal moo tax ñuy commentaire di ah, critiquer. di critiquer mais yow foofu yaa ngi yee xale jigéen ñi rek di leen wax leen gëm seen jigéen day téye boppam. Mm-hmm. xaar borom kër. Ah, surtout yaay yax fi ñu war a yaree mag yu jigéen yi yedd nañ fi ñu war a yeddee te jamono dafa soppeeku bu jamono soppeekoo nag comme ñun ay woykat lañ dañuy waxtaan ak xale yi fekk si leen ci seen parole muy parole digg bi. waaw mhm. ma gis na ni Saliya célibataire nga naka nga nekk di dundee showbiz bi ak célibataire bi. waa showbiz ak célibataire dina xaw a doy waa mooy loolu mais mooy li ma la wax rek au bi gëm sa bopp jigéen na gëm boppam fonk boppam surtout boo nekkee célibataire nekk ci showbiz bi xamal li la bëgg.

kon mën nañu xaar album bi. incha allah day ñëw dal seen kaw. lu tax nga taamu titre grave yooyu ay frontières. ay cof ci digg bi. <laughs> waaw c'est parce que mooy comme li ma la wax sànq rek Sénégal dañ tàmm woyu mbëggeel sama yaay ñëpp ñoo bëgg seen yaay ñëpp ñoo bëgg instant bi dama la bëgg moo tax ñu jàkkaarloo comprendre nga donc là où il fait fay laal fi nga xam ne fa lay mburu mi di xoyom xoyomee te nit ñi di ko dund nañ fay laal loolu moo tax maa gars yi dañuy xaw woroo tuuti ci tiitre yi ci titre mhm. euh, yow instant bi ni fan nga toj não mangi toj, mangi toj mangi toj réseaux sociaux yi mangi joué ci boîte yi sama son mu ngi daw ci clip yi xale yaa ngi waxtaane digg bi pour pour un début léegi nag dañuy ñaan yàlla rek affaire yi gën a yokk mais yaa ngi fréquenté sa mbokk artistes yi ah, bien sûr démb rek maa ngi ñoom ñoo yendu dañuy déggante surtout pro yi man damay bëgg di di di jege artistes yu mag yi parce que bëgg naa fi ñu toll ci musique après man mhm. Saliya ma dem toll fa wala ma raw leen comme xam nga donc toujours comme ñoom ñoo ma jiitu ci aar bi mhm. dama leen di jege di waxtaan ak ñoom surtout ban label moo la produire waa maa ngi gërëm Paco bu Black Record ma njëkk a moo nekk sama producteur moo ma njëkk a produire euh, Saliya dinaa la yoot moo produire Saliya sama love après nag ci laa mujj dem waa Mass 36 ñoom ñoo dóor euh, cof ci digg bi ak euh, ñoom ñoom ñoom laay bu Ashlop maa ngi gërëm Paco bu baax a baax tax ndax tey nag bu ñu naan Saliya grace à Paco moo ñëw fekk fi nga xam ne. da doon kii rek mu daal koy yëkkati moo yëkkati Saliya ba Sénégal ñëpp naan Saliya. mais amoo woon jafe-jafe pour trouver label bu lay produire. non non amoo woon jafe-jafe bi parce que xamante woon nañu avant muy yëngu ci musique sama benn càmmiñ jël sama loxo yóbbu ma ci moom présenté ma ko mu jàpp ci sama carrière moom ma njëkk a génne macha allah nii chantage nii rien jàpp rek te yàlla tax tey fu ma toll moom moo tax. Saliya ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci dalal bi ñu dalal. Mhm. lan ngay daanelee.

ñu ngi leen di jox dig dajal ci beneen numéro.